dañoo bëgg a porter Sénégal partout un partout dans le monde et international bi bien évidemment ñu ngi ci te bëgg nañ fa yegg incha allah deuxième question bi challenge yi c'est un énorme plaisir honnêtement Euh, je pense que gauche droite ñu ngi euh, de vues je pense qu'au moins dugg ci en un mois c'est énorme c'est énorme ça veut dire que les Sénégalais aiment et tey kontaan naa ci bu baax a baax a baax baax gis nañ ma jàppale ni ma supporté li ma génn ngeen challenge ko alors rab je pense que képp ku xam man xam ni rab laa njëkk a commencé Am mii ki présenté conférence de presse bi yàgg ma jox micro Tamba ci ay Fosco ci ay seen yu bëri rab moom fekkee na lépp donc man rab laa njëkk def balaa dara bi ngeen gis noonu ma def ci réseau chaque concert bu may def chaque concert bu may def dama peut-être jour boobu ngeen ko gën a ngeen koy soog a gis bëgg ko je suis en concurrence avec personne je suis en concurrence avec moi-même pour avoir une meilleure version de moi man sama bopp laay concurrence ak concurrence ma kenn ñu fi nekk sama ay yaay sama ay tante sama ay rakk ñoo fi nekk wax dëgg yàlla concurrence ak kenn. su ma demoon tàllal leen loxo ñu ñaanal ma du ma concurrence ak ñoom ñi xam ne nag génn bi kenn moomu ko heure bu ma neex la heure bu ma neex dinaa woy traditionnel heure bu ma neex ma def lu ma ci sax waaw ñu jàpp ne du def ko pour dara concurrence um ak kenn clash um kenn damay liggéey sama yoon laa nekk. da ngay def nànk ba nga bëgg a yegg fi nga bëgg a dama nekk xale nekk si yoon defaguma dara bëgg nag. liggéey ba peut-être dem Bercy dem Zénith mais tey suñu euh, suñu première sortie dañoo choisir Casino de Paris ndax foofu la ñu tollagum bis bu ñu liggéeyee nag ba war a dem Bercy wala dem Zénith incha allah dinañ ko def la deuxième question je pense c'est style de musique bi man musique lay def damay yéelaa damay woy woyu pulaar damay afrobeat je fais de la musique urbaine tey moo tax ma woo ay kàngam ñu ñëw jàpp si sama spectacle ku ci mel ni Youssou Dieng ku ci mel ni euh, Gënman Xuman ku ci mel ni Kuruma Jimboori des ténors ñi nga xamante ne ñoo ngi ci musique bi ñoo xamante ne dinañ ma jàppale pour ñu def un spectacle yi damay marimba damay damay cum te d'ailleurs li ngeen ma gis si spectacle bi ma joué cum man sama bopp en personne donc xaar leen mi yaa ci yeneen facette ci euh, mbalax bu saf sàpp waaw waaw wala <laughs> mu saf sàpp ah musique daal dinañ ko fa indi incha allah waaw. voilà donc on va prendre euh, trois autres questions. Mamadou Sène. oui. Sénégal. Oui, une dame. Hein. Fatimata Diop, Sénégal. Une autre dame, oui. Khalifa IGFM. Khalifa IGFM. Voilà. Voilà, on ça. Alors, salaamaaleykum maa ngi nuyu Mbiya Kese di nuyu képp ñu ñu ko bokkal euh, taw bi yëpp encore une fois waaye tamit dina félicité bu baax a baax sa initiative bi nga xam ne ni jël nga ko parce que yombul euh, d'accord daa koy wax léegi ne dafa ko fi dara waaye pourtant Sénégal yi ñoo ngi lay bëggee bu baax a baax euh, am na seen morom yu bëri nga xam ne ni toll nañ fi mu toll mais pourtant mu ñu jël casino bu Paris donc félicitations si liggéey bi nga xam ne yaa koy def grand bu nuyoo sama mbokk tamit alors. Euh, sama première moom mooy dañu gisoon artistes yi nga xam ni nii buñ tolloo si niveau bi nga xam ni nii euh, mu nga toll buy dem ay casino de Paris dañ koy def ay projet long terme ñu gis ñu xëy xëy ñu ngaa gisee indi ñu benn 7 septembre su ma jumalee dañuy dem casino de Paris lan moo indi maanaam euh, maanaam gëm-gëm boobu si yow est-ce que jàppoon tamit loolu risque du risque sama deuxième question. bëggoon wax si yenn critique yi nga xam ne nii yaa ngi koy dégg eh, mi yaa gisee boo xoolee référence am daan la Wally Ballago Seck mooy sama référence boo xoolee référence am daan la Youssou Madjiguène mooy sama référence comme ni ko defee artiste Sénégal yëpp ñoom eh, duñ tontu des fois si ay critique mi yaa gisee waxoon na moom du tontu ay critique est-ce que pression bi la gars yi di teg moo tax ñu tax ba saa di gis mi yaa gisee des fois muy tontu seen critique yi bay dem si ay TikTok di fa tontu ay messages est-ce que loolu jàppoon ni erreur la bi nga xam ne ni waroon nga si bàyyi xel. et sama troisième question euh, je crois que bi nga xam ne nii moom nga indi na ko yóbbu casino di xool mu nekk purement traditionnel bi nga xam ne ni koo gis nga xam ni maanaam kii africaine la alors bi yàgg si daaw na ko gis si tenue africaine bi mu changé complètement est-ce que jàppoon tamit euh, loolu mën na yàq tuuti si wàllu communication bi nga xam ne nii euh, image yi def na ko am image yi na ko alors euh, boo seetloo ci samay kàddu yi ma njëkk commencé wax nee naa la c'est un projet mûr du projet bi nga xamante ne dañoo ñëw rek par coup de tête ñu wax ko dañ ko xalaat togg ko liggéey ko ba mu ñor ba tax tey ngeen teew fii donc du li nga xamante ne dañoo jékki-jékki rek def ko dañ ko liggéey xalaat ko togg ko ba mu ñor daal di proposer sénégalais yi Casino de Paris sa question c'est trois ah day ma répondre ko après ñu ñëwaat ci loolu du dëgg alors la deuxième question c'est la réponse aux critiques alors bu ngeen seetloo defoon naa fi benn sortie ne dootuma tontoo ci benn critique waaw defoon naa fi defoon naa fi sortie ne du tontoo ci benn critique critique yooyu ngeen di gis ñu dugal ko récemment si réseaux sociaux yi c' est avant may wax loolu laa ko defoon man dama jël sama décision ne dootuma tontoo ci kenn parce que ah, nit ñi loolu la ñuy xaar ci yow dañ lay pousser pour ngay wax te toll naa fi nga xamante ne vraiment léegi comme li may wax lu waay wax baax na lu waay def baax na man maa ngi sama liggéey maa ngi sama bopp ñi nga xamante ne ñoom laa toogal sama ay waajur xam nañ ma xam nañ may kan le reste vraiment duma ci euh, attardé wu trop critiques yi ngeen di gis ngeen partagé ko si réseaux sociaux yi je pense que ça vient de vous c' est des c' est des choses yoo xamante ne duré na très longtemps très très longtemps ñu indiwaat ko peut être gis nañ Mia gis erreur ci réseau yi fan yi ñu ne xaaral ñu ñu xumbalaat réseau ci waxu Mia xam naa leen <laughs> ay waaye leen xamante ne ñu xam ne loolu lu yàgg la jël naa ay réformes par rapport ak man ay résolution autant pour moi par rapport ak euh, sama sama nekkin ci yi ak euh, sama sama nan la war a doxalee sama sama carrière par rapport ak réseau yi voilà troisième question bi waaw tontu naa ko je pense affaire habillement bi la lu mu laaj rek dañ koy def incha allah waaw. alors pour le teaser en wolof il y a un teaser wolof incha allah dinañ ko partager. Euh, comme euh, dañoo bëggoon affaire yi gaaw te heure bi dafa xaw a gàtt bëgguñu teg ñaari teaser wala ñetti teaser mais def nañ teaser en wolof def nañ ko en pulaar aussi waaw ñu xamee ko noonu alors deuxième question bi je vis les critiques naturellement très honnêtement parce que man maa opté nekk artiste man maa opté nekk nitu public mu am ñi ma bëgg. li nga xamante ne dañoo am wàll si man et su may déggee yenn critiques yi dama koy jël naturellement dama koy accepter tamit te xam ni seen bëgg-bëgg seen xalaat lañu wax et puis ma jàpp ko li ci baax ma jël li nga xamante ne baaxul ma teg ko de côté mais ngeen jàpp ni critiques yi dama koy jël très naturellement la troisième question c'est pour Youssou Diagne je pense euh, euh, wax ni euh, artiste bi dafay dafay dafay définir li nga xamante ni mooy talent te Mia boo xoolee ay vidéo nga déglu li nga xamante ni mooy ay textes xool arrangement musical am xam ne déjà am na li mu am te base bi culture la ndax euh, ay sonorités am da nga ciy dégg halpulaar da nga ciy dégg. Euh, làkk boo xam ne dafay daf lay leer ne lii ci cosaan la basé wu donc li ñu mën a apporter ñun du dara lu dul euh, li ñu dégg ci artistique ak li ngay gis des fois dafay wuute bu fekkee ne dafa laaj mu war a def live donc ñun suñu yokk du doon dara lu dul fexe ba li ngeen di dégg mu leen di neex bu ngeen ko gisee en live mu neex leen loolu la ñuy xool rek naka lañ koy arranger ba nga xamante ni c'est pas aux musiciens seulement de le gérer mais c'est à Mia Guissé moom en personne ñu diriger li nga xamante ni mooy spectacle bi di ko doxal comprendre di ko doxal moom parce que euh, moom la ñu ñëw seetaan si ah buñ ko accompagner dafa am foo xam ne buñ fa tolloo dañuy xam ne Mia moo amee li nga xamante ni mooy mooy euh, ambiance bi moo amee li nga xamante ni mooy mooy ki ñuy topp.